tey dañu ñëwoon fii ci Thiès ci cadre caravane de la microfinance islamique bi nga xamante euh, président de la république bi mu jógee ne dafay la microfinance euh, islamique ci Sénégal dafa jaadu ne euh, Sénégal yëpp war a xamandoo au même niveau d'information ci la mooy microfinance islamique parce que moom tey dafa xam ne Sénégal est un pays émergent pour que Sénégal soit un pays émergent il faut que gox goxaat yëpp andando émerger li soutenir émergence moy le financement de l'économie té économie bi concentré wu rek benn place il faut que gox yëpp am économie buy dund pour que Sénégal yep mën andando àndandoo ci wàllu wowo mu indi finance islamique bi nga xamante dafa nek doxalin bu bees ba pare nek doxalin bo xamante ne doxalinu terrain la doxalin bu oyof donc ñu ñëwoon fi ci Thiès tey pour indi leen euh, xibaar bi ne loolu mi ngi ñëw ñu wax ko ak euh, gouverneur ak ay préfet ak ay sous-préfet ak membre CRD wu gouverneur ak acteurs yi nga xam ne ñoo war a intervenir muy SFD yi ak jigéen ñi ak jeunes yi euh, entrepreneurs yi ku nekk xam kat am na beneen mode de financement bu mën a gunge seen i activité économique li mu utewee ak yeneen mode de financement yi mooy finance islamique déjà ci doxalin bi finance islamique du la jox ne la am jëndal naa la mbaal demal nappi finance islamique dafay ànd ak yow jangal la noy nappee banquier islamique bi dafa nek un banquier commerçant du banquier bo xam dafay ñew xaliss lebal la ne la lebal na la dal amel nga ma quel que soit alpha danga may fay Banque islam du noonu dama ànd ak yow pour nga liggéey donc doxalin dafa outé ki lebalu la xaliss mais daf la ab fay ànd ak yow pour nga liggéey donc ñaari doxalin yoy dañu wute euh, beneen li nga xamné moy gëna indi outé gi moy ci walu taux yi nga xamné ñëpp moom la euh, finance classique bo gisee taux yi di élevé mooy établissement microfinance dañ leen ndeyale banques yi banques yi ñoo leen boot donc ñoom bu ñu soxlawee xaalis pour lebal ko nit ñi dañuy dem lépp ca banque ba bu ñu lebee ca banque ba banque ba teg ci dara door leen ko jox ñoom tam ñu war ci teg dara loolu def taux yi élevé finance islamique ñëw ne moom du du leen dayale banque yi fay directement banque islamique moy yëkkati fonds lebal ko ñooñu mu nek fonds de refinancement te bo xolé euh, lolu sax moy moy vision bi nga président la mom la def ak la délégation à l'entrepreneuriat rapide rapide président dafa jël fonds wu réew mi ne damay jëné wàll 30 milliards at bu nek jox ko délégation à l'entrepreneuriat rapide mu nek un fonds de refinancement nga taux bu ndaw la koy joxe SFD yi SFD yi mën ko joxe nit ñi taux bu gën a tuuti. délégation à l' rapide 5 pour cent rek lay financé lay teg la SFD bi di pour financer alors que banque finance classique yi ñu ngi ci 24 finance islamique nag ci wàllu woowu la leru moom it fonds bi SFD bi dafay leb directement banque islamique à un taux de zéro mu daal di koy jox population yi ci taux boo xam ne buy tuuti lay doon aussi pour financer euh, économie bi. loolu nag il faut que aussi secteur microfinance bi foog mu defarwaat defaraat. defaraatal toogaayam ni mu defaraatee toogaayam mooy dafay jëlaat li nga xam ne mooy rôle am mooy jàngal nit ki naka la ñuy defee finance mooy naka la ñuy defee inclusion financière nit ki bu commencé productif maanaam commencé liggéey di am dara dafa war a jël la mu am dugal ko ci système financier parce que xaalis foofu lañ ko réglementé xaalis foofu lañ ko nangoo am na somme yoo xam ne boo ko yoree ci sa yox loxo yow kese sax jéggi nga yoon pour jangal nit ki naka lay duggee ci système financier lolu moy rôle microfinance. loolu boobu foog mu jaar ci finance classique foog mu adapté wu pour ñu jox microfinance rôle am ndax ku dugg ci système financier yi war nga xam lan moy chèque lan moy carte. gap moyen de paiement yi war nga ko mëna utiliser bu ko défé loolu la finance islamique ñëw doli euh, ci suñu système euh, financier wu réew